صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل على محمد سيد العرب والعجاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي yéen mbokki jullit yi rawatina mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ñun ci site bi di Rafah TV rawatina émission bi ñu tuddee xam say farata ñoo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ni ko baaxoo defee ak ci altine ju ne ci waxtu wi ci fas yéene te fas yéene tont tontu laaj yi nga xam ne moom la fi mbokk yu yónnee ngir ñu leeral ko seen mbirum diine niñ ko tàmbale woon nag. ñu ci feggoog euh, suñu deesee sëriñ Murtada Fall Rafaahi mu ñu fas yéene ànd moom incha allah taala mu xool laa yi nga xam ne moom la fi mbokk yi euh, yónnee taataan ko daañu koy jot ñu tam incha allah taala ñu daa koy leeral suñu kamtulaay kattan kon sëriñ Murtada bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu imaam ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaare xanaa di fas yéene jottali rek laaj yi nga xam ne si moo fi jot a ruus laaj bu njëkk bi mbokk mi day laaj ne ndax lépp banque lislaam daganal na ko wala déet maam lépp boo xamante ne si dangay ngay lépp ñaar fukki junni sooy fay fay ñaar fukki junni ak juróom loolu mooy li nga xamante ne si mooy suñu laaj bu njëkk. jërëjëf sëriñ Murtada ndax lépp banque dagan na wala daganut. bu dee euh, banque bi lebal gi mu lay lebal da cee teg li ñu tuddee intérêt muy ida ñu koy wax ci wolof xarfat loolu dagañut ndax bu dee sariya dafa am lu muy tuddee xardu xardu mooy ma leb la junni su ma lay fay fay la junni loolu moo dagan waaye nag bu fekkente ne dama lay leb cent mille francs su ma lay fay fay la cent cinq mille wala cent dix mille kon nga xam ne ci banque yi loolu dagañut kon daal banque yi nga xam ne dañuy lebal nit ñi xaalis moo xam commerçant yi wala ñu mën di doon ñuy fay di ko dara nañ xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy jël xaalis boobu ak ñu ko lebal ñu ngi jëfandikoo lu xaram te suñu borom nee woon na yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa zarul ma baqee min riba nee na kon yéen ñu xam ne gëm ngeen yàlla ni ngeen ragal yàlla te ngeen ko lépp loo xam ne nii dafa jëm ci wàllu riba kon daal lépp ba pare nga cay teg dara muy intérêt loolu dafa xaram wallahu alam macha allah imaam tontu loolu leer na nañ xanaa sunu ñaareelu laaj rek mooy mbokk mi day laaj ne su fekkonte ne day julli teg ci wetam loo xamante ne si matériel la muy alal muy lu mën a doon am kenn koo xam ne si doxee na ko gannaaw ñoo bëgg a jël loolu mu teg ci wetam ndax lislaam may na ko mu jug jàmbaarloo kooku nar a alalam wala day àggale julleem rek féete ak yàlla. jërëjëf sëñ Murtada ki nga xam ne mi ngi julli teg alalam ci wetam di julli gis benn waay boo xam ne dafa ñëw ngir bëgg ja alal ja ndax sañ naa julli gi wala déet bu dee ci sariya ci wàllu julli kenn ku ne xam ne julli dafa màgg dafa foor waaye nag àllal ànd ak lépp tamit. teewut ne alal dafa tamit dafa foor ndax li ñu tuddee du shar'i am na li ñu fiy tuddee ad xam sax loolu bokk na ci li ñu tuddee xifzul maal kon kuy julli teg alalam moo xam dàll la wala montre wala xaalis wala kalpe ci peggam benn waay ñëw fële bëgg koo jël sàcc ko yóbbu sañ naa dagg julli ga dem jëm dem jël alalam loolu moom amul benn bàkkaar boo xam ne moo ko cay maanaam topp ndax alalam la wallaahu alam macha allah imam tontu loolu leer nañ xanaa sunu ñetteelu bi laaj rek mooy mbokk mi day laaj na jigéen la yoo xamante ne si weeru koor fekk na ko fi waaye am na amee na ñaari weeru koor yoo xamante ne si fayu ko ngir da koo fekkoon ci ngànt ne weeru koor bu ko fekkaat na muy def ñaari weer yee jàll da koy jéglu woor weer yuy jàll wala na lay def ak moom. jërëjëf si Murtada ki nga xam ne muy jigéen yàlla binde ko muy am gànt la koy dab te yonent bi alayhi salaam ko ci xadis ba ne jigéen weer wi xaaj bi da koy toog xaaj bi da koy jàmm yàlla. moom nag mu toog ñaari weer yoo ñaari at yoo xam ne euh, am na ci ay bëri jul bëri koor te fayu ko ba beneen koor fekk fa. kooku rek dañ koy wax ne ko li mu war a njëkk def mooy loolu day wa maanaam day wone ak sàggan ndax koor at ba at la comme que ca koor gu njëkk ga dal na ko te bis mi war a fay du bari bu fekkente ne moom bi mu am gànt fekk na mu normal kon waroon naa góor góorgóorlu ba balaa koor gee ñëwaat mu fexe koo fay waaye nag comme que nag demee noonu ba koor di kalaat ko nu muy def kon day fexe koor gi mu nekk moom da koy continuer waaye nag teewut ne koor ya nga xam ne moo ko jiitu woon tamit bu fekkee mën na caa génn loo xam ne da koy génne ngir joxe ko mu daal koy joxe way laa boobu mu mu góorgóorlu ba su koor gi jàllee rek mu daal di koy fay yépp ndax comme que moom bu xese gis maanaam maanaam gànt suñu borom da koy teggal julli te julli moo gën a diis maanaam koor ndax koor at baat la julli moom bis bi set la kon nag jigéen war naa góor góorgóorlu ba bu koor dikkee su amee ngant su koor gi jàllee mu fas yéene ko daal di koy fay ndax bari na jigéen ñoo xam ne su koor jàllee dañ dañ may woo di laaj yu mel noonu waaye ku ma ci waree dama naan la da nga góorgóorlu gaaw koo fay balaa wér gee ñëwaat kon daal loolu moom ak sàggante lay doon ci jigéen ñi kon suñu mbokku jigéen ñi kon nañ góorlu ci yu mel noonu bu leen gaartee rek ñu gaaw ko fay ndax loolu dina indi ab coono wallahu alam macha allah ya imaam tontu leer nañ sunu juróomeelu laaj mooy. mbokk mi ne na ki ñu yor ab téléphone di la ko jaay wala lu mu mën di doon loo xam ne si lu ñuy jaay la waaye moom mi la koy jaay xam nga ne lii mu lay jaay alali sàcc la ndax dagan na nga jënd ko donte yow sàccoo ko waaye lii wi lii kii mbokk mi di jaay alal la joo xamante ne si moom ko ñëw di dikk di la ko jaay ndax sañ ngaa jënd alal jooju. Euh, sëriñ Murtada jënd alali sàcc rawatin yow mi nga xam ne yaa ko jënd. nga xam ne kii di ko sàcc loolu dafa xaram dagañut bu fekkonte ne sax yow alal ji da ko jënd ba noppi xamoo ne alali sàcc la waaye nag boroom ñëw ne lii sama alal la teewul ne yow mi nga xam ne yaay jënd alali sàcc jooja su boobaa kon léegi yow faw borom alal ji da koy jëlaat ndax alalam la ndax daa bokk ci sàtti njaay mooy kiy jaay alal ji na fekk loo xam ne nii lu moom la moo tax kon yi sàcc kenn waru koo jënd rawatina nga xam ne lii alali sàcc la ndax dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk lu xaraam wallahu alam macha allah yaa imaam tontu loolu leer na nañ xanaa sunu juróom benneelu laaj rek mbokk mi day laaj ne xëy na lu bari ci réew mi wala ci yeneen réew yi nit day jël sa alal maanaam nit dalay sàcc nga far ko rey ndax loolu dëppoo naag li nga xam ne si moom la lislaam wax nit ki bu fekkee da laa sàcc yow nga rey ko ndax lan la lislaam wax ci àtte boobu. Eh, maanaam sëñ Murtada jërëjëf eh, ndax nit ki ñu sàcc ko mu rey sàcc ba luy àtteem li may njëkk wax mooy ne bu dee ci faat bakkan ab jullit waru koo def ci yu may yoo xam ne sariya da koo tënk. te sarixa yam ci tënk ci ne ci lañ sañ faat bakkanub jullit loola sàcc bokku ca bu dee sàcc moom la suñu boroom wax ne moo war ko sàcc moo ñu maanaam dagg loxoom wa saariqu wa saariqatu faqatanu aydihuma ila axir aaya nit ki bu la sàccee bala ñu dagg loxo sax faaw dañuy xool lam sàcc ba xam toll naa li nga xam ne la sariya wax ne képp ko sàcc dañu war a dagg loxoom waaye nit du këf ab téléphone wala sàcc ginaar rek ñu jël ko daal di koy rey kon képp ko xam ne kon laa sàcc ak doon sax lan la sàcc sax maanaam ëpp na nisaab li ñu wax ci ne ku maanaam ku sàcc mel noonu dañoo war dañoo war a dagg sa loxo soo ko reyee tamit am nga bàkkaar moo tax léeg gis ñu ne wub sàcc bi rek gaa yi tëb daal duur daal koy rey kon ab sàcc daal bu sàccee dañoo war a fexe ba jàpp ko suñ ko jàppee yóbbu ko ci kanam yoon waaye nag kenn wuru koo rey ngel ne dama sàcc wala alam macha allah ya imaam tontu loolu leer na nañ sunu juróom-ñaareelu laaj mbokk mi day laaj ne day julli ànd ak imaam waaye imaam bu demee ba toll ci taaye day yàgg lool ci jotaay ba ba mujj moom li muy taaye sax du ko xamati ndax kooku lool noonu da koy sujjóot wala imaam da koy gàddu jërëjëf sëñ Murtada bu dee ci laaj boobu li mu ci njëkk a wax rek moo di ne imaam dañ koo jiital ngir mu jiite nit ñi waaye nag jiite gi ñu ko jiital teewit na yonent bi alayhi salaam waxoon na wax jëm solo nee woon na yow imaam bi jiite ay nit nanga nga xam ne na nga xam na nga jàpp ne ñi nga jiite am na ñi ñéeng ca di nga gis koo xam ne boroomi soxla la day yàkkamti julli gi jàll mu dem fekkee soxlaam dañu gis koo xam ne mag la di gis koo xam ne maanaam wérut dañu ci gis koo xam ne maanaam xale la kon nag su ngeen di jiite ay mbooloo na ngeen di woyefal ci ñoom loolu xadis la boo xam ne xadis bu siiw la yonent bi salaam wax ko moo tax moo tax kon ki nga xam ne dafa ànd ak imaam waaye imaam yi dafa yàggu julli rawatina ci taaye bi muy juum moom su ko toltee rek moom rek bu taayee ba àggal rek moom na ne tekk déglu imaam ndax imaam dañ ko war topp su ko defee bu imaam sëlmale mu sëlmal waaye nag su jóot waru ko ca kon loolu kon day dellu ci imaam yi imaam yi ci boppam ñu war a def bu fekkee dañuy jiite ay nit ñuy fas ne woyefal julli gi ndax jaam yàlla baax na lool nag waaye tamit nga xam ñi nga xam ne da leen jiite su ko defee nga julli julli gu woyof goo xam ne sart yeeg yëpp da ciy àndaale ak yi nga xam ne moo ci war a moo ci war a ànd wallahu alam eh, suñ juróom-ñetteelu laaj mbokk mu day laaj ne dafa jëkk ci jumaa ji fekk imaam di julli ak mbooloo mi lu mel ne jullit tisbaar ndax bu dikkee sañ na dawal ñaari rakkaay naafilaam wala dafa war a ñëw rek ànd ci jullit mbooloo googu. moto euh, Murtada ki nga xam ne dafa ñëw ci euh, jumaa ji wala jàkk ji walla xaataa sax mbooloo fekk ñu julli mu ñëw ci biir jumaa ji euh, daal di bëgg def lañ tuddee tahiyatul masjid wala boog di ànd imaam. saa yoo diggee ci biir jàkk wala jumaa fekk imaam di julli na ko fekkee rek noonu ngay kàbbar ànd ak moom soo ko fekkee mu taxaw nga kàbbar ànd ak moom su rukkoo yi tamit noonu boo ko fekkee mu too tamit noonu waaye doo ko xaar ba mu ba mu jóg nga nga kàbbar wala sax ngay ñëw di def maanaam tuddee taxitul masjid ndax lay dafa nekk farata lii nekk sunna te dañuy bañ bu fekkee da ngaa ñëw di def li ñu tuddee taxitul masjid far imaam sëlmal kon ni subaa léegi li liñ tuddee nga jëlu mbooloo da nga koy ñàkk kon daal ku ñu ci biir jumaa wala jàkka fekk imaam bi di jiite loo boo duggee rek fa nga duggee rek kàbbaral melokaan ba ñu nekk ñoom nga ànd ak ñoom noonu mooy li nga xam ne mooy eh, li war wallahu alam macha allah imaam tontu loolu leer na nañ xanaa sunu juróom-ñeenteelu laaj rek mbokk mi day laaj ne nit koo xam ne dafa tuub dugg ci lislaam ci biir weeru koor xëy na bi muy tuub weer wi am na ay fan ndax li jot a weesu da koy fay ci koor gi wala day ñëw dabe. jërëjëf moto daa euh, lislaam dafa war a yaatu ñu ëpp ci ñu gëmul dañu war a gëm yàlla doon sax ñëpp mënuñu gëm yàlla waaye nag koo xam ne dafa nekkoon ci jeneen diine suñ boroom niit ab xolam ba lislaam dugg ko bam ne demi bam ne léegi day tuub suñu borom dogal nag mu ñëw ci tombe weeru koor moom moom nga xam ne dafa dugg ci weeru koor ci lislaam tuub bu fekkonte ne dafa tuub ci digg weer wi xaaju weer wi lam paase loola du ko fay lu mooy ne nag bu fekkente ne misaal tey dafa toog ba ay tisbaar daal di tuub dugg ci lislaam kon teewut ne day continuer jàpp kooram waaye nag bis boobu da koy fay da imaam Maalik bañ ko laajee ci masala bi loola tontu dana kon képp koo xam ne dafa dugg ci islaam waaye nag mi dugg weeru koor la mu dugg ci bis bi fekk bis maam jant bi soowagut kon bëccëg googa da jàpp ne bokk na ci moom da koy daal day mel ni comme xale boo xam ne dafa nekkoon maanaam xale jékki-jékki rek mu kàllaf ñu ñaan ñu bokk àtte wallaahu alam. Ah, jërëjëf macha allah imaam eh, laaj bi ci topp mbokk mi nee ñaar ñoo xam dañoo duggandoo ci biir jumaa fekk mbooloo mi di julli imaam imaam rawee na leen ñaari rakka bi bi nga xamante ne si imaam sëlmal na ñoom ñaar ñu jukkandoo di fay ndax kenn gi sañ naa roy morom ji ci julli gi. Sëriñ Mourtada ñaar ñooñu nga xam ne dañ leen raw si julli imaam sëlmal leen war mooy kenn ku ne nga fay la nga xam ne moo les mu ñaar rakka ndax ñoom ñaar kenn ku ne. mënta nekk imaam ci moromam bu fekkonte ne ñoom ñaar ñooñu imaam dafa am gànt daal ci wuutal ka nekk ci kon kenn ki kon mën a nekk ci moom maamum waaye nag amaa nag imaam jul na ba noppi sëlmal ñoom ñaar ñu war a fay kon kenn ku ne rek dangay mottali sa ñaar rakkaan waaye kenn kenn kenn ci ñoom ñaar mënta nekk imaam ci maanaam moroomam ndax kenn mënta nekk imaam nekk maamum ci benn yi lu mooy ne imaam ba daa am gànt wala alam macha allah imaam ñoo ngi lay jaajafal bu baax ci tontu li am solo li euh, di wax mbokk yi rek lii mooy li nga xamante ne si moom lay laaj yi ñu fi jotoon ci semaine bi xam naa kon di leen wax rek képp amul laaj rek boo ko yónnee ci numéro yi incha allahu rabbi altine bu jot ci waxtu wi danañ fi toog euh, jébbal ko ki nga xam ne mooy imaam mu tontu ko tontu yu leer nañ imaam kon xam dama lay bàyyi nga tàggatoo ak mboole mi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sumatulla ñu ngi lay siyaare baaxee tamit di siyaare mbokk yi di rafetlu tamit wax dëgg yàlla seen laaj yi nga xam ne ñu ko yónnee ngir ñu leeral ko eh, xam naa rek di sant yàlla suñu borom ci jataay bii di ñaan borom lépp lu ñu rek mu jub ñu sant ko suñu borom xam ne ci moom la waaye nag lépp lu ci dëng rek ngeen xam ne suñu gàtt àllu ak suñu jumte wa nasalullaha an yajcalna min lisina yastamiuna alxawla fa yattabiuna ahsanahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba beneen insha allah allahumma salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam allahumma salli ala muhammadin sayyidul arabi